ça veut dire que euh, et ça c'est il appartient aux sociologues mu gën a dugg si loolu parce que c'est pas mon c'est pas mon corps mm-hmm. mon corps de métier mais faw ñu wax ko mm-hmm. quelqu'un dan ban Sénégalais la ñuy construire la ñuy tabax est-ce que xam nañ ko est-ce que xam nañ lu ñuy def nii est-ce que universitaires yi toog leen xool ko est-ce que Euh, lu mu tudd politique politique yi toog nañ xool ko est-ce que yi ak policiers yi def nañ ay rapport ba nga xamante ne tipp yi ñuy gis waxuma la agression waxuma la banditisme professionnel man maa ngi màgg ñaay cokkeer l'un des quartiers les plus dangereux du Sénégal voilà màgg di fréquenter ay kilifa si wàllu bant ba rëbës musuma dégg fu ñuy rey nit si biir bu dul seen biir tey ngay gis ku lay agressé sa nga xam lu nga yor rey la door a jël lu muy jël wala dóor la jaasi door jël lu ngay jël. Hmm. mais loolu ban façon la nit ki loolu loolu qu'est-ce qui l'amène ba mu àgg si degré violence boobu pourquoi on en arrive là est-ce que police moo tax ñuy rey nit tey c'est pas la question hein c'est pas le procès de la police. Hmm. est-ce que gendarmerie tax ñuy rey nit. non bu ñu bu ñu changé wax bi. rey nit si biir kër ga lay commencer. dafa am rey nit guerre rey nit bavure rey nit mais si biir kër yi moom la ñuy wax lu tax loolu am. Hmm. mais sinon ne touche pas du doigt mais on va faire tout ce qu'on veut nit ñi vont continuer à mourir je pense que de ce point de vue dama lay jox benn exemple ndaw j'étais la fois dernière si benn lycée lycée di Mamoulaye maa ngi fa dem keroog 9500 élèves si benn lycée ma xool salle de classe vraiment ça c'est hors sujet tu me diras peut-être mais loolu c'est déjà un terreau mm-hmm. c'est tout ce qu'il faut pour la violence ça veut dire dañuy créer les conditions de la violence day commencé si biir kër yi nga génn sa kër xool si mbedd bi condition de la violence dañuy dem ba vous ne vous rendez pas compte mu am syndicat bu tudd gësëm gësëm ànd gësëm ànd gësëm xaw ma gësëm vous imaginez loolu c'est ay ay spécialiste de la santé ñu ne gësëm les gens s'en rendent pas compte. tey ñu ne la ah, ñoo lànk. Ah, non mais mais non de la psychanalyse. secteur bu que le sociologue parce que j'estime que bu ñu toogee fii wax ay police toog fii di wax ay gendarmerie. on n'aura rien réglé du tout on n'aura pas pourquoi on est devenu violent day dem ba dans la nos appellations ça veut dire mais tey fii ku ñu fi saaga tu peux être indifférent à une insulte buñ la mbéjee nga indifférent di nga taxaw xool nit ki waaw je donne l'autre l'autre jour. tu donnes l'autre jour <laughs> tu sais combien de personnes en sont capables. <laughs> bëriwul de kooku yar la xam ñun arts martiaux def moo. waaw kooku yar la pourquoi ma mm. posé la ko parce que dafa am fu ma màgg. Mm. dama màgg si biir ki j'ai été agressé poignardé. ah oui xam naa de quoi je parle. waaw xam naa de quoi je parle boo dundul traumatisme boobu munoo xam lan mais heureusement que dama am dama doon def arbas mais affaire bi lan la mooy pourquoi tey commissaire dafa wax benn affaire jaay suñu jamante paaka mu am ku dee des suites des blessures bon ça c'est euh, au tribunal d'en décider mm. mais pourquoi jël paaka jam combien de fois tous les jours nit ki jóg rey keneen ki ba pare toog di ko regretter toute ta vie après nga nekk ay mbokk mais pourquoi pourquoi faut-il tout de suite l'extrême policier bi arrêté la am lu mu la wax amoo recul nga wax policier bi ça tourne mal. Mm. c'est-à-dire moi pour bu buñ waxul loolu muy tourner di ne police la police mooy notre civilisation mooy mooy lu le tout de notre civilité mooy la police. professeur. pour moi professeur. pourquoi wu Charlie yi bëri na. mais benn moo tënk lépp pourquoi nous sommes devenus violents maanaam lu tax léegi ñu ñu ñu ñu mel ni ñu mel ba di ba di rayaate mbarax ci laaju Pape Djibril boo xam ni fàttewu ko benn yoon mooy bi muy wax Euh, jafe-jafe koom parents yi démissionné ndax loolu mën na ko expliquer ndax lay la maanaam ndax loolu lay bu. yanu maanaa la. waaw xam nga dama tàmbale sànq ma ne la. nit koo gis muy dund. Hmm, dañ ko mooñaale dañ ko mooñaale benn parti boo xam ne. violence parti boobu bàyyi ma la. Hmm. parti bàyyi ma boobu bëgg-bëgg rek la gis. Hmm. dafa bëgg lekk dafa bëgg a naan. xelam dafa nekk ci li bëgg-bëgg rek la gis. mais parti boobu il faut ñu réguler ko balaa muy def musiba balaa muy def lépp. régulation boobu. moom mooy yar bi ñuy def ci nit bi. Hmm. alors suñu penc yi bu njëkk euh, boo ko dee xool ñi nekkoon ci penc mi yëpp ay mbokk lañu ne looloo indi ay kër kër Masaar kër Njaayloo kër hmm, hmm, mooy maam ba nga xam ne moo sañ ci penc ma moom la ñuy jox turu penc bi nga xam ne ñu bokk ci penc mi boo ko dee xool ci moom lañu joge ñeneen ñi dañuy wax wuro ñeneen ñi di wax euh, saare ñeneen ñi di wax kunda Touré kunda Cissé kunda et cetera mbokk lañu daan nekk mais léegi nag ci mboq boobu ñu daan nekk dafa am ay jikko yoo xam ne dañ ko doon def ci xale yi dès le bas âge dafay bind ci enfant noir ni bi muy nekk xale dafa am heure yoo xam ni papaam ak yaayam dañ ko doon wax ni loo mënti jàpp bàyyi ko nga ñëw ci kër gi mu ni bi mu màggee la gis ni heure añ la ak heure reer te heure yooyu nee na ni ñu doon taajee ndab li ak moom ni mu ca doon lekkee dafa am jikko yu ñu doon def ci moom donc bu ñu taajee ndab li ba pare dañ naan ko toog toog bu jub toog bu yiw toog bu sell ginnaaw bu defee loolu ba pare ñu ni ko na nga téye ndab li ak sa loxo càmmoñ ndab li warul yëngatu mm. ndab loolu mooy penc bi mm. ku ci nekk danga ko war a téye sa loxo càmmoñ ba nga xam ni penc mi du yëngatu mm. ñu ni ko yow sa loxo ndeyjoor rek ngay lekkee te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam dong nga war a yem dama animé conférence université de Dakar lu tax dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la route même dañoo lekkatul ci ndab parce que ki ñu ni sa kanam ngay lekk doo yuutu kanamu jàmbur sa place rek ngay yem mën nañu am yaakaar ni bu màggee di dawal dina yem place ndawal bi ci diggu ndab la mag ñi dong ñoo am droit jot ci ñooñu ñooy les gouvernants les responsables les autorités. ñoom ñoo am droit jot ci mais ñoom amuñu droit jël ko taf ko ci seen kanam ñoom kese. dañ doon séddale bu baax dañ ko war a bàyyi foofu ku ci ah. nekk la nga war a am ñu jël ko ah. tagg la tegal la sa kanam professeur. alors xoolal façon yar boobu euh, ak yeneen éléments yu mu développé. Hmm. léegi dañu dem ba benn instant euh, ñu changé suñu mode boobu ñu dëkkee woon. Hmm. créer ay ville notamment bi fi tubaab bi ñëwee. bi tubaab bi ñëwee colonisation française dafa jël lépp lu nga xam ni moo nekkoon infrastructure de production et de transformation taf ko ci wetu géej gi. Mhm. loolu la ñuy wax littoralisation de l' activité économique. Mhm. boo ko dee xool li commencé Grande Côte ancienne région du fleuve. ñëw ba ci dakaar mhm. jógee Dakar dem ba Finistère bi nekk Cap Skirring. ci ci façade océan boobu ci la tubaab bi taf ay usine am ak yu demee noonu. bu mosaan jël gerte wala wëteen da koy jëlee ci dëkk ba ca biir fa sore mhm. indi ko ba ci ba ci littoral bi transformé ko def ci bateau yóbbal dëkk alors looloo tax mhm. Dakar nga xam ni moo gën a tuuti ci Sénégal wax nañ ko léegi 550 kilomètres carrés 0,3 pour cent de de du territoire national Dakar plus de 4 millions d'habitants ñi ngi fi yeew waa Dakar ñoo ëpp waa Gabon yëpp boo leen boole. Mhm. te Gabon moo ëpp Sénégal Gabon 267 000 kilomètres carrés la Sénégal 197 000 la matu ko sax Gabon fait autour de 1 million 800 000 habitants la banlieue de Dakar ñoo ko waa Gabon yëpp boo leen boole. Mhm. waa Touba ñoo ko waa Gabon yëpp boo boole. Mhm. donc aménagement du territoire wax naa la yar ni ñu doon yaree bu njëkk. Mhm. ensuite ni ñuy sancee suñu ville yi mën nga def cartographie bi tey jii boo demee yenn dëkk yi nga xam ne laayeen ni ñoo fa dëkk yu mel ni Yoff ak yu demee noonu boo fay dégg agression c'est rare. waxuma du am. Ah, ah. est-ce que peut dëgg la. boo boo demee ci yeneen yi nga xam ne moom la ñuy wax surtout cité yu bees yi. nga xam ni un nit ñi dañu xaw a replier ci ñoom ku nekk bopp sa bopp boo wootee wàllu boo moytuwul nit ñi duñu génn mais fële bu kenn yuuxoo ñëpp génn moom la buuba doon wax léegi ñëpp daal di génn ñëw jàpp ci loolu élément la bi ci des mooy un élément important mooy société bu bees boobu nga moo xam ni moom moom la ñu créé dafa indi léegi compétition entre les acteurs compétition li ñuy joxe bariwul te ñi bëgg bari boo demee danga koy fekk ci parti politique yi joxaguñ ma boobu ba léegi. boo demee danga koy fekk ci yeneen secteur ci service yi ci et cetera kii am na lii man amaguma ko. li ñuy joxe bariwul te ñu bëgg a jot bari. mu indi benn compétition ak benn rivalité léegi nag nga dem yenn saa ci benn maaman mu ni la pour nga jot ci faw nga indil ma ñu xale il faut faw nga indil ma nopp xale nga indil ma yu demee noonu mm, mm, mm. alors donc bu ko defee te boo ko dee xool loolu yëpp buñ koy pratiquer boo ko dee xool li ko li ko sabab mooy am-am. am moo xam ndombo tànk la moo xam leen mais am-am moom mooy nekk ci moom mooy nekk ci kanam alors que boo dee xool suñu penc bu njëkk. wala prestige quoi voilà am-am. bu fekkee ni jaarul woon ci yoon. nit ñi duñ la jox cër bañ la waroon a jox cër nit ñi ngi lay jox cër. bu fekkee ni sa am am jaarale nga fa nga ko war a jaarale. ñu xam ni kii daf koo daf koo ñafe. daf koo am daf koo jaarale ci yoon. daf ko lew waaw mais léegi bu fekkee ni noo ko amee rek baax na. yow dañuy da leen di leer ni ci ay tappale nga ko amee ñu bëgg la ñu bëgg la jox cër moo tax question de sécurité boo li Charles wax d'accord daa ci boo ko bëggee yamalee ci police ak gendarmerie dafa am ay dimension yu yu yu nga xam ni dafa gën dafa dafa dafa yaatu mm-hmm. yoo xam ni euh, encore une fois bu ñuy wax ci euh, planification projection mm-hmm. nga xool booy créer dëkk Mbour am na quartier bu tudd bay dëkk xam nga loolu moom moo lay wan ni ci aménagement du territoire am na bay dëkk nit ñi dañuy ñëw rek fekk nii ñu kii bu ñu dëkkee ba pare nag ñu soog a xool naka la ñuy def naka la ñuy tegee te loolu sax déjà sécurité des fois fa fii yi jaar demal ci suñu marché yi fii lu courant yi bis bu ne nga gis marché bu lakk après bu ñu xoolee ba ci biir gis ni ni ñu ni ñu xëccee woon beeg la defee noonu donc yooyu dafa nekk ay éléments yu nga xam ni dafa nekk éléments yu am solo sécurité ni ko mm. Abraham Maslow di waxee besoin de sécurité nee na gis nga nit ki ni mu bëggee du lekk rek la soxla. yenn saa nga nangoo liggéey ci benn entreprise pas parce que lañ lay fay dafa bëri mais parce que tu te sens en sécurité là-bas. Mm. sécurité bi mooy jàmm bi nga am ak nit ñi. Mm. moom mooy tax nga daal di dal euh, ku mel ni Milan Kundera bi muy bind l'insoutenable légèreté de l'être nee na gis nga lal mën nga ko bokk ak ku ne waaye nelaw koo wóolu doom nga ko bokk mais léegi mais léegi professeur mm. euh, der nga baal ma léegi su fekkee ne dañuy comme li ñu constaté ni yëpp léegi ñu ne dañ ko bëgg a ñu parce que sa biir wax dama ci gis ne souvent benn laxisme dafay am benn laisser aller comme bay dëkk bi nga wax noonu nit ñëpp toog di constater ne lii jëmul ci jàmm lii di raam ci ñag bi la jëm. Mhm. te bu fa eggee du baax. Mhm. wala lii di raam jëm ci tool bi bu eggee dina ruur léegi finalement su ñuy situer responsabilité yi hmm? léegi nan lañ koy defee. ak kan la ñu war a interpeller aussi sur sa mission bu fekkee ne dafa am ñoo xam dañu éloigné wu seen mission classique mais kan moo leen ci war a rappeler ñan ñoo leen ci war a rappeler. est que foofu amul dysfonctionnement. loolu laa lay wax sànq bi commencer approche systémique. Mhm. globale. Mhm. et collaborative de la sécurité. je parle pas de la police en lay. bi mooy secteur yu ci bokk xam nga léegi dama la wax aménagement du territoire euh, après ma wax la la famille après ma wax la suñu suñu même suñu organisation yi barabu mm. liggéeyukaay yeeg et cetera et cetera mm. donc il faut que bu ñuy wax mbirum sécurité ci mm. approche bi ñu dugal loolu yëpp parce que benn dama la wax encore une fois nit nit dafa am parti bu koy tirer vers mala nga xam ni lu manqué ci leneen luy xeex ak loolu rek mala bi day ëpp doole bu fekkee koom dafa manqué mala bi day am doole bu ko manqué suñ Moussa Ka mooy wax ñàkk bon ci waaju baax. bu ko manqué nit ki am problème. ñàkk moo bon ci ci waaju baax bon ci waaju baax. waaw léegi bu ko manqué bu éducation manqué. am problème éducation waxuma la instruction rek de. Mm-hmm. éducation éducation yar boobu bu manqué mala bi day day dafay yeewu. Mm-hmm. or boo dee xool éducation école ñun daara bi ñu njëkkoon xam bu njëkk bi ñu daan njëkk yar ci famille lañ daan yare mm-hmm. première école bi ñu am ñun c'était la famille. Mm-hmm. après la daara alxuraan ñëw daara alxuraan prolongé euh, identité familiale yooyu. nga daan bay di napp ak yu demee noonu. après ci la école française di ñëw. Mm-hmm. mais école française bi ñëwee bëri na ci lu nga xam ne suñu identité woon suñu cosaan ak suñu aada daf koo xaw a toxal. Mm-hmm. ah daara moo xaw a téye loolu. mais daara bi beneen responsabilité ndax organiser nañ ko façon organisation boo xam ni dina continuer di liggéey. ci éducation nam doon yare ak nam doon parce que gis nañu à partir des années 70 avec les cycles de sécheresse que ci la commencé am phénomène u daara itinérant daara yu nga xam dañu commencé di jógee dëkk di dem beneen dëkk avant c'était des daara communautaires daara bi ci gox bi leen boo demee Ndar ba léegi da nga ko fay gis dañ naan la daara Moxsin Diop daara et bu fekkee xam nga Saint-Louis tuuti sëriñ daara ba fa lay mës a nekk fala la fa di di di jàngale di jàngal nit ñi diine boo yaa ngi wax léegi yéen ngi bokk njigéem mais benn caractéristique u njigéem mooy ay nit yoo xam ni dañu dañu parce que man dama liggéey ci séeréer yi ci sama thèse doctorat euh, dañu dañu dañu dañu tee ci seen aada ak ci seen cosaan mais tey jii boo ko dee xool transformation yi nga am tamit mooy yar bi Mariama Ba mi ngi koy bind ci euh, une si longue lettre mm-hmm. nee na parents yi léegi instruction la ñu gën a toppatoo ko éducation. beaucoup plus de savoir que l'éducation. kan moo fiy jël boo jëlee sa doom yóbbu ko ci sëriñ daara. Hmm. maa ngi koy wax ci conférence su famille omarienne bi yóbbu ko ci sëriñ daara boo fayee 2000 da ngay jàpp ni kii dafa bëggee. Hmm. doo ko jox dara. dëgg la mag bu nekk biir na gunaas nee na. Hmm. bu fekkee yow da nga nekk wéyjur boo xam ne am nga dara waaye xamoo dara. nga jël sa doom bi nga xam ne amul dara xamul dara dénk ko sëriñ daara boo xam ne. xam na dara waaye amul dara te yow jàppale ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara. Mm. jeex na wax mm. euh, ci alors très mm. rapidement rek temps bi daf ñu xaw a dab euh, commissaire facteurs yi ñu wax.

effectivement jàpp nañ une tonne cent cinquante kilos dans la nuit du 19 au 20. mais li raw ëpp di jàpp. li raw li raw. mooy ëpp parce que di nga jàpp mais am na am na lu rëcc am na géej la. oui Casamance lañ koy jëlee. c'est vrai léeg-léeg jën karoon trans mu ñëw Mbour. te day transiter foofu parce que en réalité c'était destiné à Dakar. Mm-hmm. c'était pour la consommation de la région de Dakar. Ah c'était pas pour Mbour. waxuma la sax mbaa yooyu Dakar lañ koy waxuma la sax est-ce qu'on a une idée de la consommation Dakar à l'année bon loolu nag y a des statistiques de toutes les façons yoo xam ne. non c'est important parce que. dina dina leen non non c'est important fu mu la bëgg a yóbbu noonu. maa la ko kii exactement ñun ñun tey bëgguñu topp ci façon pour résumer dinaa leen bàyyil statistiques yi nga xam ne. siis yi yàmbaay yëpp mi ngi fii. mais mais mais mais c'est des statistiques non exhaustives parce que DSP la. occultisme bokku ci yeneen yeneen services yi bokku ci. en plus. alors euh, en plus mooy jàpp lu ëpp voilà mais mais d'espérer euh, kilos comme c'est énorme mais mais mais li li li tuxum yàmba moom tout coin da ngay jàpp man li may defeere ci ay yàmba kenn xamul et eh, c'est valable pour tous les commissaires mm-hmm. euh, leneen li aussi mooy la drogue dure waaw la drogue dure mm-hmm. ça l'usage intraveineuse de la drogue dure mais c'est extrêmement grave et puis am na ñoo xam ne sax dañ leen di dañ ñu ngi leen di ñu ngi leen di faj. Hmm. parce que bu ñu lay faj dañuy jox. Hmm. ab ab mais mais bi ñu lay jox dañuy dañ koy doser. Hmm. parce que mënu c'est pas sevrage brutal mënu ci am donc c'est de manière progressive mais mais am na ñoo xam ne dañuy nekk ci hôpital di faju mais di di utiliser en même temps di gën di di di ko jël surdosage donc ñooñu loo defar ci suba gi ci ngoon gi ñu yàq ko et cas yi da cee bari alors mais mais mais c'est yu mel noonu nag euh, drogue beeg yooyu mooy expliquer hmm. violence bi bi ngeen di wax léegi nii. alors permettre ma en 30 secondes rek est-ce que ñun tamit ñun ñëpp laay wax presse bi ci boppam ak ñëpp li ci la ñu bokk dans notre langage est-ce que du ñooy favoriser violence. à commencer par parfois nos titres yow nooy waxee sa kër Pape Djibril nu ñuy euh, hmm. digérer diggante yi buuba boo mais bon damay bañ nga tënk ma ci say question yi quoi. Ah, dafa am leneen lu ma bëggoon laajte rek. waaw <laughs> mais kon laajteel ñu delluwaat ci li laaj. parce que boo xam commissaire mi ngi wax affaire statistique dama bëgg a xam. Hmm. par exemple euh, par rapport ak pays dëkku sous région bi fan la Sénégal toll si mbirum violence boo defee comparaison entre ñun ak yeneen dëkk yi je pense que loolu question bu am solo la. beneen bi mooy ci li ma doon wax pour professeur li ma doon wax au début est-ce que parce que pan boo ma confirmé loolu dina daal sama xel peut-être que aussi je me je me mais est-ce que ak yooyu may wax yu spécifique yooyu nga xam ne Sénégal am na ko. est-ce que waruñu si mun a baser pour consolider un peu. professeur njëkk ñu ñu ñu mooy. mais mais absolument loolu nga wax dafa am solo. Euh, gis nga par exemple am na ci ay tubaab yu bind nii. ñu mel ni ñoom Vincent Montel ni Sénégal euh, commissaire wax na ko au début ni ceinture de feu li mm-hmm. mais malgré tout dafa mel ni am na une stabilité mm-hmm. ñoom li ñu bind nii dañu am ay euh, gëm-gëm dañu am ay aada ak ay cosaan yu mel ni ay kalante euh, yu mel ni ci ay tarixa nga xam nit ñi dañ fay daje ñoo xam ni kii waaso yu bëri quoi dañ fay daje nekk ci benn ëtt euh, di collaborer euh, nga xam ni même bu fekkee ni gan dafa ñëw Evans Pritchard dafa bind dans les Nuer nee ñun suñu dëkk yi boo ñëwee da ngay nekk mbokk wala nga nekk noonu parce que boo ñëwee rek dinañu fexe ba boo yoree beneen sant ñu jox la benn sant boo xam ni ñu ni Sissoko mooy Guèye ñu ni xam nga waxee ba nga xam ni léegi dañ lay boole ci pénc mi yooyu rafet la lii ma sof ci li ciy wax mooy souvent nag yooyu lañ dul wane suffisamment. dafa boo dee xool li ñuy gën wane mooy souvent aspect yi nga xam ni. doxul quoi c'est vrai que war nañ ko wane yi doxul. voilà exact mais li dox bi dafa am. dañ ko nangu dañ ko accepté. Mm. titre bi est-ce parce que zéro violence zéro meurtre wala dara amul fenn. Mm. maintenant ma ne moo tax ma ne ko teg quand même ci balance ñu xool exactement fan la mbir mi toll parce que aussi des fois. di di wax si dara loo xam ne peut-être eggagul foofu ça peut même. man mii di wax ak yow ah. encadré naa ay étudiants américain yoo xam ne dañuy ñëw di gëstu. parenté à plaisanterie mm. ak cousinage à plaisanterie mm. parce que dañu ni modèle boobu la ñuy jéem xool ñoom seen quartier yooyu ñu bokk mm. naka la ñuy jéem a def ba appliquer parce que gis nañu ni nit ñi dañu tëju euh, yenn saa yi mu am ay jafe-jafe kenn ñemewul kenn léegi nag dañu bëgg jël modèle parenté à plaisanterie parce que gis nañu lu rafet la lu jekk la naka la ñuy mën a def ak yan voie la ñuy xool ba dem appliquer foofu mais pour ñu mën ko appliquer il faut ñu xam histoire am ñun nan lañ koy pratiquer fii et cetera et cetera nga xam ni euh, joolaa il est impensable que mu laal séeréer. Mm-hmm. Euh, nga xam ni yu demee noonu. yu façon yu rafet yooyu mu ñu ni ñoom naka la ñuy def li ma bëgg a wax mooy foofu li moom la Cheikh am Tidiane si Al Maktoum di wax Tumranke nee na Tumranke ma ngay tàmbale ba nga xeebee sa bopp. yow ba nga amee lu rafet ba pare daal di jàpp di lii soxlawu ma ko Joseph Kizerbo tuddee ko la naat des autres mm-hmm. nee bis boo bàyyi sa basang mm-hmm. dem ci basangu jàmm mm-hmm. place ba gën doo fa toog bu ko defee nga gedd dem di seetiwaat sa basang am ko la ko gën a soxla jël gannaaw oh, oh, oh, nag basang mi ngi yàqu te am na ci responsabilité la leen bëgg poser ñoom ñaar question pour le commissaire question wax dëgg yàlla buba c'est pas de l'autoglorification mais mais Sénégal moo moo ne pays yu bari. man man man man am naa chance su dem ci pays yan yooyu. surtout dans la sous-région. coordonné naa également benn mission de simulation d'attaque terroriste d'abord de trafic international de drogue dure d'attaque terroriste au euh, Radisson Blu en passant mm. par des échanges d'armes à feu au Mali et cetera